jiital ci nuyoo bi nag suñu kilifa diine bi fi teew muy wasilawu Umar Diop euh, parce que olof dafa wax ni xer buy téye sàkket daf ci dara loolu mooy nit ki bu fekkee na ko jébbal sa bopp àddina ak alaaxira dafa war a fekk foofu taxaw fu nekk mu fekke ko moo xam ci naxar la moo xam ci bànneex la kon tey je crois que fierté la mbégte la que suñu sëriñ bu tedd bi nekk suñu ginnaaw

parce que bu ñu wax ci Omar Diop ñu fi jóg waaye ñun danañu wax rek ci li nga xam ne moo waral bésu tey bi ku xool ñiy toog fi ñenn ci ñu toog fi ci tribune mooy ay nit yoo xam ne ci seenu ndaw dañ ko jaayante woon ngir askan wi am loo xam ne moom la ñu tànn muy football di ko defal askan yi pour bëggal leen ñooñu tey ñu nekk fi di football di football yàlla def ñenn ñi génn àddina ñenn ñi mënatuñu kon dafay baax ñu fàttaliku leen Eh, pour ñu mën a servir exemple ëllëg xale yi xam ne ñoo fi nekk lii moo war a bés bi ñu ni kan moo ko war a sargal ñu ne askan yëpp a ko war a sargal waaye segam askan wi ko war a sargal dafay jekk nag ñi nga xam ne ñoo màggandoog Omar ñoo defandoo ak moom jeunesse ñu jëkke mbir mi pour que bu ëllëgee mën law ci ñeneen mais ñu leen di seereel ne lii nga xam ne moom la ñuy sargal Omar du Omar kese moo ko moom parce que bu ñu xoolee parcours Omar Omar dafa def service militaire te ku ne service militaire ne dafa am ñoo àndaloon kon fi nga xam ne Omar doon fi yëpp ci àddina ci fonction militaire am dafa am ñu mu àndaloon ñu doon def loo xam ne dafa jekk seen diggante lu rafet kon ñoom tey bés bi ñoom ci la ñu bokk képp koo xam ne bokkoon ak Omar yaa xam ASFA la moo xam équipe nationale euh, léegi kon yow ñooñu aussi bay nañ seen laaj ci ni mu waree parce que dañu ne équipe équipe du benn nit kon buñ ci cëppatee benn di ko sargal tey na wóor ñëpp ne à travers moom ñëpp la ñu sargal kon képp koo xam ne toog nga fii moo xam ancien militaire nga moo xam sportif nga àndoon na ko Umar ci ASFA comme ci équipe nationale ak ñi nga xam ne sax dañ doon jonkonte ak ñoom sur le terrain sportif kon kenn ku nekk ñu ngi lay sargal ci bés tey bii di ñaan yàlla yal na nu yàlla may ñu fekk koy ati ati ati at euh, wax naa ko sànq si suñu njëlbeen nee naa wax ci Umar dana xaw a jafeñ Euh, ndax ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla may tey ñu la ñoo koy initier ñoo koy def ay moromam la ñoo xam ne ñoo juddoondoo ñoo màggandoo ñoo yaroondoo kon nag am na ñu lu ñu xam ci Umar xëy na du ma ci sori parce que am na koo xam dana ko wax ci kanam mais li ma mën a seere rek mooy lenn Umar nekk ni nit koo xam ne dafa nekk nit multidimensionnel mooy lan mooy Umar boo ko fekkee ci diine ji nga ne fa la baax nga fekk ko ci sport bi nga ne fa la baax nga fekk ci biir askan wi aussi nga ne foofu la baax kon tey dama yaakaar ni bu ñuy sargal Omar ñoo ñëpp ñoo dajoo di ko sargal euh, kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla jàggal mais mënuñu sori aussi te amuñu lu ñu fàttaliku ndax nag wax naa ko léegi sama sama njaal benn nee naa Omar dafa am fu mu soxi ko Omar fu mu soxi ko ñun ba ñuy nekk moom fukki at la ñu am ba tey ñu am juróom-ñaar fukki at ak ñaar kon def naa ne ànd bi yàgg na mais ma leen di seereel ne lépp lu nit wax ci Omar ci ci baax ci sacrifié wu pour askan wi na la woonu Omar daf ko namp daf ko namp kon defalu lu tari li nga xam ne moom la jàng maa ngi fàttali ko dem si yàlla si du jóob yàlla ko yàlla yërëm mu doon magu Umar loolu suñu mag ñu ñëpp jël ñu tette ñu tey boo Umar demee di évoluer ci football ba toll fi mu toll yàlla euh, euh, du la parce que bi duudu xoolee xam na Omar léegi li bëgg-bëggam la daf ñu dajal ñun ñëpp créé ñu équipe tudde ko Allemagne jënd ay maillot maa ngi fàttali baax noir et blanc noir et blanc la woon jënd yëpp teg suñu disposition lépp lu ñu a bëgg ci kër lañ koy defee kon nag dëgg la duudu baax na waaye kër aussi ngànkoon nañ ñu maa xalaat suñu papa Fodou Diop maa ngi xalaat suñu yaay Ndiaye maa xalaat suñu euh, Fall su fekk bi mais ne derrière tout un grand tout grand homme il y a une grande dame kon tey il faut ñu fàttaliku jigéen yoo xam ne àndoon nag ak Umar jàppale ko ci lu bari eh, muy Mbathio Diop yal na ko yàlla xaar àjjana ak doomam ñu tuddoon ndey eh, eh, Fatou Diop moom tamit yal na ko yàlla xaar àjjana tey bëggoon nañ te ñu fekk bés bi waaye yàlla xëy na moo dogal mais nag lu mu métti métti métti am na lu ko faj bu ñu gëstoo gis Alimatu Ndiaye gis Mohamed ak doomu Omar yoo xam ne ñu nekk ci kër gi dañuy fàttali ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb kon xëy na mën na métti ñu jooy waaye nag nañ sant yàlla bi ñu amee ñoo xam ne toog nañ seen place kon ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax baax man particulièrement nag maa ngi sant ay nit en tant que président du comité d'initiative kii euh, dafa métti bu ñu ne yaa jiite rek sas nañu la kon yàlla rek moo li mën a jàppale xëy na du ma lim tur ne parce que bu ma limee tur danaa juum waaye dinaa wax ne képp koo xam ne bokk nga ci organisation bi li ko dalee ci njëlbeen ba ci fin bi ñu ngi lay sant parce que gis nañ sa taxawaay yëf yi biñ ko sosee yàggul moyen bariwul kon bu ñu fexee ba am lu mel ni tey ba di ko ba di ko ba di ko bëggee kon ñoom ñoo ci jàpp kon ñoom ñëpp ñu ngi lay sant leen gërëm lu ñu fàtte nag suñu autorité yi yi nga xam ne ñoo fi nekk euh, le représentant du monsieur le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt est là en la personne de Omar Fall euh, tey ñoom ñoo fi naroon teew mais ab dëj la ñu am fii te xam nga dëj bokkul ak lii moo tax ñu ñu ngi sant ñëpp ñëpp Euh, maa ngi am mbégte bu mag a mag a mag a mag euh, kii Omady Safonteel mooy Ngiro Dia Ngiro Dia ancien footballeur bu gendarme ku ko xamul aussi dégg nga ko mu doon koo xam ne fii la dëkk ci wax waxinaan ni waxinaan bii fii la cosaanoo ba yàlla tey mu nekk bitim réew kon li mu def nii tey digganteem Omar rafet wan na donc ne ñoom bi ñu nekkee ay jeunes àndoon nañu bi ñu nekkee ci terrain sportif àndoon nañu maa ngi beral nag nuyo spécial suma mag suma doyen muy Sidi Ndiaye mi toog ci kaw tribune bi ah mbooloo mi ngeen baal ma tuuti rek xëy na gudd na mais danaa wax ci moom a ah, kii toog mën naa wax ne suñu métier jàngalekat bi ñu doon ki ñu ñu fett la bokk mi ngi nii bi ñu affecté ci àll bi ñu dem ñu nekk ay jafe-jafe ci Casamance ci guerre libération Guinée Bissau mu metti woon lool

ne man damaa dégg ne yéen a ngi def te Omar doon koo xam ne sama référence la kon danaa ñëw fekkee lépp loo xam ne ni mën naa ko ci en tout cas en ce qui me concerne ci wàllu euh, euh, audiovisuel danaa ko def kon euh, Bécaye ñi ngi lay sant Mountaga ñi ngi lay sant ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla feex seen fan li ngeen def mooy seen profession yal na ko yàlla mottali ngeen dem ba leen dégg ba am seen télévision tax yooyu yëpp je crois que donc wax ji jarul guddal sant la ak ngërëm rek ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp wasalaam di beral nag mention spéciale armée sénégalaise colonel euh, xamal les amis de Oumar les parents de Oumar ak képp koo nous ne nous na nous sargal nous, ñu nous, ngeen ñu parce que nous avons fait fan nous ngi nii ma trois ou quatre fois dans la journée fu ngeen toll lu manqué dinañ def leen nous li yoo Nous yëpp def nañ ko kon nous koy nous di nous aussi DMTA yi ne yi ñoo gratuitement fay ñu kon je crois bu ñu doon lim dina bëri di demande di gërëm aussi suñu mbokk FPU yële fédération pour la paix universelle kuréel la boo xam ne dañu ne ñoom dañu jóg pour jàmm law ci àddina ñu tànn na tey ba su tey bi ni danañu ñëw fekke waaye it danañu sargal Umar pourquoi parce que ñoom li ñuy dox Omar a ngi teg tànkam di ci liggéey kon ñu ngi koy sant bu baax a baax

qui a contribué aujourd'hui à notre éducation. Donc, euh, du nous, tous les membres des forces de défense et de sécurité, surtout les militaires qui sont là aujourd'hui, nous sommes ak euh, doyen Omar Diop, tous les enfants nous sommes nga

réew mi mu nekk réew mi da ko war a ndamoo te commune de Wakhinane Nimzatt bii mu nekk commune bi daf koy daf koy ndamoo parce que bokk na ci ay doomam yoo xam ne ñi ngi taxaw taxawaay bu mat sëkk bu mucc ayub te xaaru ñu wax leen kaay def nangam te xaaru ci dërëm te mu ngi koy def avec fierté ñu koy rendre hommage di ko féliciter parce que ñi organiser lii aussi ñu ngi leen di sant parce que ñun lañ ko defal la commune de Wakhinane Nimzatt parce que doomu Wakhinane Nimzatt la doomu Sénégal la ñun ñoo war njëkk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy sargal parce que yàgg na servir nation bi comme ni ñu ko waxee léegi ba léegi muy continuer donc ñu koy ñaanal ak yàlla yokk fanam yokk suturaam defal ko sutura guddal fanam defal ko ñëpp parce nag. ku amal njariñ sa réew amal njariñ sa gox sa réew ak sa gox mën ñu ludul fu ñu nekk di la ñaanal ngay am mën-mën am kàttan ba service bi ngay rendre la communauté nga mën a continuer service boobu doyen Omar merci merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à faire pour la communauté la communauté Wakhinane vous remercie aux gens des forces armées aussi ñu ngi leen di sant di leen rendre hommage à chaque à chaque fois ça a été un plaisir de may ak drapeau national parce que c'est une fierté pour moi les couleurs nationales et euh, les symboles de la nation même Sénégal a un match international man suis venu à stade national bi xamatuma dara ci match donc ce sont des couleurs des symboles yoo xam à chaque fois di inculquer nos enfants nous xam ko respecter aux membres des forces de défense et de sécurité je vous rends hommage parce que ce ne sont pas les pierres qui font les murailles de la cité, ce sont des hommes. Et ces hommes, c'est vous qui assurez notre sécurité. Je vous remercie. Doyen Omar, longue vie, plein de bonheur et avec une santé de fer. Merci. damay tambali nag ci sunu sëriñ sunu sang bi alkunti yu ci sunu ginnaaw ak sunu copain yi nga xamante ni ñoom lañ doon àndal ci terrain yi partout à travers le Sénégal et à travers l'Afrique et le monde. J'en citerai quelques-uns. Yahougaï, Amadi Diop et surtout Pereira ak ñi nga Asfa Ngiro il nous a fait rire rigoler à la suite d'un match disputé par la gendarme et que la victoire est au bout. beneen bi nag moo di dama koy wax ci wolof fii tey dama fi gis nit ñoo xamante ni dañu maa delloo ba mayam sama ñaar fukki at ak juróom bi nga xamante ni kiloot laay sol yor sama sifflet di daw ci terrain yi ci foofu laa tollu nag kon nag ku yëpp na ma moytu ndax ku doole yi dikk na di sant nag Omar li nga xamante ni nag moo ma fi indi monsieur Samuel Ndiaye chef du service départemental des sports de Guédiawaye moom la préfet jox invitation bi ni ko ministre bi moo la jox nga dem moom itam mënul ñëw mu yónnee ko jox ko ko man il m'a yi à froid comme on dit ni ma demal fële di nga xam boo yeggee rek ma ne ko bu ci yàlla ndey jaamu su ma yeggee bu ma gisee gaañi rek dinaa xam li may wax du bari waaye dana leen fàttali Omar Diom nag c'est un homme multidimensionnel yàlla na nu ko yàlla fayal ak nag ay contemporains parce que ñun dañuy sant suñu borom bi subhanahu wa suñu génération ñi mag Omar ak ñi maaseeg Omar ak rakki Omar Diop yëpp yàlla daf nu dimbali ñu génn ci écuelle yi nga xamante ni ñoo am ci àddina bi feebaruñu làggiwuñu dugaluñu ci drogue dugaluñu ci banditisme defuñu dara def ñu def ay citoyen honorable ba wëlbatiku nag boole ñu ci ñi nga xamante ni dañuy jàngale ndax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na jàngalekat bu fekkente ni yow da dund junni at bis bu nekk nga jox ko million mille dinaar su nga dund junniy at fayloo ko benn araf bu mu la xamal kon jàngalekatu école ak jàngalekatu alxuraan ak giley inscadre nun mënuñu leen a fay yal nañu leen yàlla fayal bi jaayi nabi Moustapha yéen ñi nga xamante ne nag yéen a jël jóge ci seen kër wuy si woote bii ndax woote dafa jafe waaye woote ñu wuy la moo ko gën a jafe te tey fii gis nañu ñëpp ñëw nañu ah bi may jógee nag ci sama sëriñ damay dem ci nag euh, monsieur le colonel je reprends ma position et je me mets au garde-boue au nom du service euh, chef du service départemental des sports représentant le ministre des sports je vous félicite et prie le bon Dieu qu'il vous laisse continuer ba nga dem retraite ak ballon galon yu weex tàll yu gën a dem ba nga nekk général yu ànd ak wér ak wéralee yal na leen yàlla dimbali nag yéen parce que sama sëriñ moo ma ni président la république xalif général ak ñëpp bu ñu nelawee te de nelaw homme de tenue yi nga xamante ni ñooy garde sécurité bi ñoo tax ku nekk mën a ne kon nag kenn ku ci nekk war na ni ASFA jërëjëf ASFA nag en tant qu'institution sportive dafa nekk nag ci suñu fierte suñu anal sport la première médaille bi nga xamante ni équipe sénégalaise indi na ko muy la médaille d'or di tournoi de l'UFOA au euh, nu ñu koy tuddati doo daaw meñ Cotonou Cotonou Cotonou mu nekk loo xamante ni ñëpp dañ ci bég boole kook itam ngeen nekk ci biir fii réew mi ngeen nekk surtout karte yi formation bi ngeen di def Omar dafay jàngale di dimbali nit ñi te Omar ay xaritam ñi mu doon àndal pas de las facilement ñoom euh, Samba an et consort ak yooyu yëpp fu mu ci Omar foo ko fa fekkee rek da ngay gis ni Omar kii la léegi nag monsieur le ministre des sports préfet bi nee mi ngi leen di félicité yéen ñi nga xamante ni yéen a organisé lii ndax lii dafa bokk ci li nga xamante ni programme la bu gouvernement bi la. programme mu gouvernement bi la ñi mu bokk ci Omar nekk ci loolu di ko liggéey moo tax mu ni mu ngi sant yàlla di leen gërëm di leen ñaanal dégg nga ba ngeen xamante ni lii ngeen mën ko yàgg def lu bare bare parce que programme gouvernement bi kat mooy développement par le sport par les canaux des di du sport te yéen ñi fi nekk ñii yëpp. kenn ku ci nekk ku mel ni Omar ubbi fi lu mel ni Omar yaa ngi dimbali nation bi pour di ko former pour dindi fi chômage bi ak yooyu xam nga nag euh, les les arbitres et les anciens sportifs ak anciens enseignants bu ñu yoree micro wala ñu jàkkaarloo ak mbooloo mi rek dañu yaakaar ni dégg nga war nañoo mën a jàngal ñëpp ngeen jéggal ñu nag bu fekkente ni deraaye nañu sunu bala may dem nag ma di leen fàttali sunu mag sunu maître Youssou Ndiaye rahmatulahi alayhi ancien arbitre international doomam bëggoon na fi ñëw ndey Alsane Ndiaye waaye ñëw fi mais nag comme man yàlla daf maa dimbali ma bokk ci ndongo yi nga xamante ni Youssou leen formé ba ñu si fii ma di wax nag Omar Diop jërëjëfati El Hadj Sey merci beaucoup en virtuose parce que par de parle de de de musique virtuose chef d'orchestre bi nga doon yal na la yàlla dimbali ba lii nga xamante ni nga gën ko mucc Omar, mes hommages et mes félicitations. L'ensemble de toutes les personnes présentes ici et qui voudraient être là, je vous dis merci beaucoup. Yahoo, clin d'œil, merci beaucoup. Monsieur le représentant de la commune de wakinan Nimzat, Monsieur les membres de la, délégation de la Fédération pour la paix universelle, Monsieur le président du conseil des imams de la commune de wakinan Nimzat, Monsieur Kounde, représentant de la famille Khadria, chers invités, c'est pour moi un immense plaisir de représenter le, le général d'armée, chef d'état-major général des armées, à cette cérémonie destinée à rendre hommage à une personne émérite qui s'est illustrée par ses qualités humaines exceptionnelles. Je veux citer l'adjoint-chef à la retraite Omar Diop, qui contribue encore sous un autre registre au développement de notre pays. Sportif de très haut niveau dans les années 70, Omar Diop a marqué l'histoire du football sénégalais tant avec l'association sportive des forces armées ASFA qu'avec l'équipe nationale. Se remémorer son, parcours, son parcours professionnel permet aisément de se rendre compte à l'évidence. Lui rendre hommage n'est ni une faveur, ni un privilège pour lui, mais un droit oui, chers invités, Omar Diop fait partie des citoyens sénégalais qui ont tout donné pour leur pays. Nous leur en sommes reconnaissants. C'est pourquoi, avant de parler des fonctions actuelles exercées par Omar Diop, je tiens à vous donner un aperçu de sa riche et glorieuse carrière militaire. Omar Diop est entré en service le 2 février 1970 et a aussitôt, a aussitôt intégré la prestigieuse équipe de football de l'ASFA dès la fin de sa formation initiale de combattant. Il restera dans l'équipe durant toute sa carrière de footballeur de 70 à 83. Ainsi, pendant 13 années dans l'élite du football sénégalais, il s'est montré exemplaire avec un comportement irréprochable et un souci du devoir. Meneur d'homme, animé d'un sens élevé de responsabilité, il portera le brassard de capitaine de l'ASFA durant 6 ans de 74 à 80. De plus, grâce à son talent inégalé de footballeur et ses valeurs patriotiques, il sera sélectionné en équipe nationale et nommé capitaine de 76 à 80, malgré son jeune âge. Amoureux du métier des armes, il a passé l'essentiel de sa carrière militaire à l'ASFA et n'a jamais cédé à la tentation d'aller monnayer ses talents dans un club civil au Sénégal ou à l'étranger. Ignorant les nombreuses opportunités qui s'offraient à lui, il préféra rester dans son pays et le servir. Omar Diop a effectué un parcours sportif impressionnant. En effet, il a remporté plusieurs trophées majeurs. Champion du Sénégal à trois reprises avec l'ASFA entre 72 et 75. Finaliste de la Coupe du Sénégal en 74. Finaliste de la Coupe de l'UFOA en 1979 au Togo. Il a aussi participé à plusieurs campagnes avec l'équipe nationale de football. Zahir en 1974 et au Ghana en 1979. L'armée a connu une grosse perte lorsqu'il a choisi en 1993 d'arrêter sa carrière militaire après de bons et loyaux services. Enthousiaste de son métier et pétri de qualité d'instructeur, il fait profiter aujourd'hui les jeunes de Guédiawaye de son savoir-être et de son savoir-faire en leur consacrant son temps et son énergie. Chers jeunes de Guédiouaï, je vous exhorte à vous approprier les valeurs morales et sportives incarnées par Omar Diop. Chers invités, je ne saurais terminer sans adresser au nom du, général chef d'état-major général des armées et au nom de tous les membres de l'ASFA mes sincères remerciements à l'association Les Amis de Omar Diop pour avoir pris l'initiative d'organiser une telle cérémonie euh, euh, et pour nous avoir invités à y prendre part. Ces remerciements s'adressent également aux autorités, aux autorités, religieuses, administratives, coutumières ici présentes. Nous prions le bon Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder une longue vie et une santé de fer à Omar Diop, qui a marqué de façon indélébile l'histoire du football au Sénégal. Omar Diop, merci pour tout. Ce que vous avez fait pour la nation, l'armée la asfa et votre quartier. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. encadrer Merci, merci Ahmed. Merci Ahmed Touré Je jërëjëf Ahmed en tout cas ana de formation parce que les mu def ñun la ko defal ñun ñun ancien ASFA yi ak ancien internationaux yi parce que bu bu ñu toogee ba xalaat lu mel nii am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ko waroon a xalaat defuñu ko ñoo nag bu ñu toogee ba jël Omar Diop ne dañ koy sargal ñun ñii lañu sargal ñu leen di gërëm di leen sant amu leen moroom waa dama bëgg nañ aussi ngeen may ma ma sant armée armée ak A bu mag parce que lii bu mënee nekk tey armée moo tax moo colonel ñu ngi lay yóbbante ci semga bi euh, semga bi xamal ko ne ko kontaan nañu bëgg nañu ci biir armée nag dafa am asfa bu duloon asfa tey bés bii du am parce que asfa moom moo tax Omar Diop mii tey jii nit ñi xam ko xam ma man mii Amady mii Omar Diop mii euh, euh, euh, Omar Gueye parce que ar moom la ñuy wax ne moom moo ñu créé moom mooñu créer mooy ñoo xam ne ñun ñii actuellement ku ñu xam ASFA moo tax nga xam ñu as suñu jaaru ASFA dafay yombal suñu nekkinu armée bien que nag bi ñu nekkee ASFA aussi def nañ fa ay fayda boo xam ne moom moo ñu permettre fépp fu muñ mu ñu dem ci biir quartier gi ñu naaw ñu de par suñu ay action yoo xam ne def nañ ko ci ASFA ASFA nag amuñu payam ñu ngi remercier le chef de corps le colonel di koy yóbbante ci chef d'état-major bi xamal ko ne ko ancien ASFA yi jaaroon ASFA ñu ngi koy sant di ko gërëm te gis nañu apportam mais dama fi ñëw aussi ak beneen casquette mooy kasketu

Nous avons ñu jité nous ñu ma kaw félicité Omar di sargal di Omar Diop pour wax dit que Omar Diop man ak cinquante ans 50 ans je pèse bien mon mot. avant ñuy dugg armée ba tay ji fu Omar Diop gis sargal sargal da ngeen sargal képp koo xam ne Omar Diop bokkaar naa moom ak terrain parce que Omar Diop mi ngi nii saa yu masaan gestu gis na Amady gis na Omar Gaye gis na Jaxu gay gis na Mohamed Diop Chérif Kandji ñoom ñëpp ñu ngi fii te te bés bii daf ñu tax sax ñun ñu gisewaat parce que naanee ngi nii naan yi 74 laa ko gis ba ñu jógee Chine fekk ñu jëloon ñu yóbbu ñu en Chine de ay espoir Nous avons bu ñu en Chine préparation Si ba légui gisaatuma ko vous jii ko gis ñu di remercier autorité administrative yi fi feew waye di remercier aussi autorité religieuse Omar Diop wax ci mom parce que di rassembleur la gis nga yi ngeen moo leen du leen du ñu fay dara moo leen di yoree école de football comme ni waa ji waxoon moo di jongal moo leen di dugal école loolu lépp mu nekk ne Omar Diop daf koy def Omar Diop problème mu jàmbur mën na ko fanaan loo ci mbedd problème jambour mu nekk waa joo ne ku ku ku ku am reconnaissance la Omar Diop man davon dafa nekk davon dafa def dafa sama seex parce que Omar Diop fu ñu mës a dem si mbiru sport même bu dul sport Omar Diop and nañu Sud Liban and nañu Libéria en tant que militaire combattant fu sama compagnon de guerre la li ñu compagnon de guerre li soldat wa compagnon de guerre fu mu mës a gis nañu football bi aussi partout fu Omar Diop mës a nekk maa ngi ci wetam nekkoon na waaju xarañ bo xam ñun buñ ko mësaan gis ci ginaaw dañuy am duñu am problème benn bés rek benn marché dong la mësa gis waaju ko waaju ko buntu xataal suñu mat Sénégal Algérie Omar Diop ñu ñu attaqué gaay Omar Diop taxaw ci ginaaw mom ak avant centre bi gaay yi contré ñu Omar Diop tëbandoog avant centre bi ñu daanu ci rond central bi Omar waji jëk jëkk Omar Omar na te ma ko jàpp ba saag mu ne du ma ko jàpp kii maa ko gën a gaaw gis nga la temps muy jóg avant centre bi jóg ak accéléré ba taal suñu kër foofu laa mos a gisee loolu Omar Diop nekk koo xam ne xaritu ñëpp la muy asfa comme équipe nationale fu ñu mos a nekk néegam moom mooy néegu waxtaanukaay bi fa la ñuy attaaya ba tey jii boo ñëwoon këram léegi attaaya baa ngi boy mag am kontaan nag sama xarit yii nga xam ne waa équipe nationale la ñuy waa asfa mën naa leen muy Amady Omar Gay, Jahu, Serif Kanji, Nani Ngiro nyom ñëpp yàlla defone bokon bokkoon nañu di ànd di liggéeyal senegal loolu nak lu lu ñu neex la hymne national bi bi fi rëkkee legi suñu yaram dauna, na parce que xam ne lañ daan def dañ daan taxaw ñu tëgal ñu hymne bi ñu défendre suñu réew donc euh, ma revenir si aswa man man dama nekk un pur produit de l'aswa man un pur produit de l'aswa le loo xam ne nañ ko def football les fondamentaux lañ koy wax Asma laa ko à 21 ans 21 ans li xale yi di à 6 ans 21 ans laa ko jàng aswa comme ni wax à 23 ans j'étais sélectionné en équipe nationale donc nga xam ne liggéey nañu foofu liggéey Asma na te dafa dafa dafa dafa day gis benn waay ci mbedd mi rek mu ko jël ko andi def champion le cas de Apollo et autres da ngaa ko donc loolu la colonel revenir si si dans la formation nga xam ne dinañu fa ñu ñun ñu fa trop Omar Diop kuy wax ci wax ci suba parce que yàlla lim ñu non seulement suñu parcours mais ba Omar jóob bu ñëwee sama kër lu ko neex mu laaj fa sama doom bu jigéen Omar jóob moo ko maye moom laa ko bàyyele moom moo ko maye donc donc man damay dama koy sant rek di gërëm di jéggalu nag si guddaay bi bu waxee xam nga ñun dañu bëri wax militaire yi jërëjëf kontaan naa. sang boobu moo tax parce que dañu bokk lu bëri ba pare bokk Seydina Mohamed moor ma ni bëgg na ko bëggee goo xam pratiquement yow sax soo ko bëggee jàll waaw vraiment loolu li ma gën a boole Omar Diop Sylla euh, may sant yàlla nag si si jataay bi parce que euh, man dama di nitu géejewaay euh, géejewaay sant 1972 bi ñu ñëw géejewaay fekk na moi j'avais vingt ans vingt ans yooyu maa ngi ko dund champ course jamono yooyu bé béy bel maa ngi koy gis en 1970 ou bien ou bien 69 e, yooyu mais dafa wàcc ci kaar bi léegi rek mu dox rek ma dab ko ne ko saa waay santoo Fall mu ne waaw ma ne ko Jal Diop mu ne waaw ma ne ko fu la doon nañ Jal parce jamono yooyu soo gisee ñun ñuy daw e, e, Salif mun na ma seede jamono yooyu soo fubalee trois matchs championnat doo football nawetaan man nag newetaan moo ma gënaloon waaw man nag newetaan moo ma gënaloon franchement moo tax daje naa fa ak Mayoro daje fa ak Salif daje fa ak Tabares ñoom ñëpp si nawetaan parce que man foofu laa foo féete woon sama bopp. Euh, en 1972 bi ma ñëwee Géejawaay di liggéey pour dëkk bi euh, taxawal fi benn sant de formation boo xam ne pratiquement xale yi dañ leen di jàngal métier. ñuy defi sport ñu wutale ay temps de travail ak ay brouette si suñu si suñuy charge tali bi su su su su su bëree suuf xale yooyu ñoo jël brouette yi nettoyé ko ma wëlbatiku gis Omar liggéey boobu Omar Diop li may liggéey mu koy liggéey muy ko muy doon koo xam pratiquement xale yi ñoo koy fanaanal benn bërëb guddi ak bëccëg ah ñu jàppante di liggéey ba léegi ñu toog ñun xalaat ñun waa Guédiawaye dafa am loo ñun ñoo ko moomal suñu bopp te ñuy ñaan yàlla ñuy ñaan yeneen gox yi ñi nga xam pratiquement ay jaxukaay fële dëkk naani fële dëkk ñeneen fële dëkk ñooñu su nit ñi bëggee euh, mas suxal seen seen seen nit seen i vedette ñu fexe nu ñu yëkkatee bés bu mel nii sargal leen parce que euh, am na ñoo xam pratiquement xëy na dëkk bi kenn dootul xaar euh, nga def fi dara ba jàll ñu lay fàttaliku waaw reconnaissance boobu franchement yaa ma dégg man mi dund ak yéen guddee bëccëg nekk di nekk ak Mbaye Fall yaa may dégg nekk ak Tassirou marché central yaa may dégg xam naa ne xëy na reconnaissance boobu yaa may dégg bi waroon am amul nit nag euh, doo xaar doo xaar ku la dimbali Euh, am na booloo boo ne euh, suñu suñu défé ben bloc suñu suñu Nous ñu dem suñu leen dimbalul ñu dem On ñu am initiative bi nous les amis d'Omar Diop ci suñu ginaaw mak euh chaque semaine day deux ou trois filles, té ñag lay lay à son âge ñëw assisté ñu li nga xam ne nag moom suñu xel xalaatu ko ci kayit ak ci njàng moom mu féete ñu foofu moom moom grand élage yaa may ku jóge ñàgg di ñëw fii di bëgg sargal Omar Diop def li tey li gën a gën a gën a gën a sedd xolam tey mooy euh, ñi gëj a gisee si ñi gëj a gisee si yéen muy ñoo xam département comme li Babacar wax léegi Babacar ñoo dëkk

suma mag su ma koy wax sax mën naa am suma rongañ day tuuru parce que moom euh, lépp luy teraanga ñeewu ci kenn te ba mu waree football football na génération yaa ngi soo doon génn juróom ñi ko dàq football euh, di di di nga di di di nga xool ba sonn mu ñëw doon suñu mag et suñu doon bale fee tey. Europe la jógee ñëw vacances su ñëwee vacances këram ma nga Maris day jóge day bàyyi këram ñëw fii su ñun suñu doon bale fee day ñëw suñu doon bale fee day ñëw doon rak doon mag ci Omar Diop Omar Diop doon rak si moom fonk ko lool chaque jour suñu toogee mag Omar Diop moom la jël en référence ñoom fii koo xam ne parlement mu sagal muy Salif fu mu nekk dama ko wax ma ne ko il faut ñu woowee Salif mu ñëw damay dem si yenn si si assiette yoo xam dañ koy wax wax football ma xool ñuy wax wax football li ak li may may yéen mais dañ ma jaaxal géejewaay mënuñ fi daje di wax football Omar Diop neewu fi Salif Diagne fi mais ñooñu da leen di sagal ngeen ñoom ñuy ñëw di toog di déglu li ngeen di wax suñ si amee xalaat ñu joxe ko ñun ma may leen non mënul nekk ñun rek kese kese kese amuñu

10 ans capitaine équipe nationale kooku kan moo ko ëpp grade pour man dama naan ku jëlagul coupe d'Afrique yëkkati ko indil ñu ko am ëppoo ñooñu grade kon kon euh, ñi ngi nuyu ñëpp di di di di di delloo njukkal tamit pratiquement suñu xarit yi nga xam pratiquement ñoo nekk géejewaay déplacé wu euh, pour bés bi ndax pour sargal Omar Diop muy waa niim gi euh, ànd ak. commandant Talla Diop ak coach Diop Diagne waa si waa waa amoo waa amoo waa yaakaar waa waa Nimzat ñoom ñëpp pratiquement euh, sang bi Ndiaye représenté na la na ak grand waa waa amoo daal ñu ne quoi bon vraiment Omar bés bi yàlla nay doon bés boo xam ne pratiquement euh, ne la jig yàlla fii ñi fi teew ñëpp yàlla leen yàlla làq fa yàq agul euh, ubbi leen xéewal boobu seen jot te ñuy ñaan soo leen fi jóge ngeen def benn bloc boo xam ne pratiquement xëy na li jotaay yu mel euh, toujours du mën a am mais gise bi ak bloc bi ak social bi nga xam pratiquement si la Omar Diop nek ñun ñu nek ci yeen so leen ci taxawé ñun Sénégal suñu xamé ne yeen yeen ci taxaw dinañ si jàpp euh, ñu ngi sant Yalla di jullu Seydina Amady Tade Salasam suñu imam tamit ñi ngi koy nuyu parce que mom moy imam imaamu euh amul 4 5 6 suñu ngenté moy ñew suñu dëj moy ñew suñu takk moy ñew il s'est déplacé wu tey pour ñew fekk ci ki moy imam si. imaam ñu ngi lay gërëm di ñaan yàlla yàlla yokk sa leer baax si naa Mohamed sallallahu alayhi wa sallam man militaire laa militaire du grève yéen grève leen mooy woon man militaire laa du ma te moo ne woon capitaine ñu yóbbu leen ñu joué ak Algérie fii boobu si gor ay gargot la leen di yóbbu gargote ay gargote la ñu ñii la ñuy ndekkee ñu dóor Algérie un but à zéro fii coupe il faut waaw bii mooy wax nii xam ngeen ni rupture li ko ma 6 mois ngay tok mom mom rupture ligament croisé football gagné match bi mu ñew fi médecin bi ne ko mënoo jouer ak sa tank bi c'est pas vrai mu ne ko pourtant mom la jouer kon nak mu ne ko yow mom xawma ma duma ci dara rupture ligament croisé 6 mois ngay tok mais Omar Diop mom la jouer trois bi yëpp ba mu jeex ba jël coupe kon nak merci capitaine dañuy ko continuer ken du ko delo way vraiment lima ma li wax yeb nit ñi wax nañ ko Kwa sama gaaje to ñoom jaxu bay ñoom Salif Diagne ñu ne yàgg naa leen seet yàgg naa leen seetaan yàgg naa leen xool ndaxte man évidemment daaw ma fubal Facebook dana gis man li may def ci sport sauf le rugby rugby daal moom laa ne xamuma ci dara te nataan ak natation waaye li ci des muy handball muy muy muy muy basket loo ma ci laaj mën naa la ko wax ce serait long nag de le dire ici c'est seulement euh, pour dire que man daal maay vieux supporter vieux supporter la signé sama Facebook tout le temps même léegi bind naa cérémonie bi bu ngeen ko lire léegi gis ko parce que Omar Diop moom wax ci moom vraiment mënu ma ko moom xam naa ne xawuma sax mais man xam naa ko li ñu ci wax yëpp xam naa ko ci euh, lu mu tuddati euh, l'avant-dernier orateur bi mu jëlee parole di daf ne Salif Diagne de war nañ koo sargal parce que moo ñu yóbbu ba euh, Razak Casablanca gagné fa champion ma ne ko war nga ci boole moo dugal bii moo dugaloon bii ba <laughs> Salif Diagne moo dugal jaxu gay yàgg naa ko xool moo itam moog police vraiment euh, li Alaaji Sey wax ci man euh, moo ma xaw a jàpp tuuti ba émotion vraiment moo ma étrangle parce que man ma seen mag je suis dans l'enseignement depuis

depuis le colonel euh, Fall, euh, jusqu'au jusqu'aux amis de Omar Diop maa de Nu, di nuyu di leen sant di leen Facebook le vieux supporter Sidi Malik Ndiaye. À chaque fois, je raconte ce qui se passe dans le sport. Je suis là à la cité des enseignants. Voilà, dès vous me respectez, vous voulez que je m'en Wassalam. dañ koy ñaanal yàlla rek gudd fan gu ànd ak wér ak wérle di ko ñaanal yàlla lafal ko cat musal ko ci seytaane ci barke Seydina Muhammad kontaan naa trop taxaw fii di def témoignage Omar Diop parce que maak moom yàgg nañu macha allah di yëngul ci lu bari loo xam ne ni mi ngi koy yëngu ma di ko ci gunge Omar nag volet sport bi gaa macha allah duma ci wax parce que wax nañu ko ba pare mais dafa am benn vole boo xam ne ne Omar da koo jiite fii ci commune Wakhinane Nimzatt mu nekk volet boo xam ne macha allah Omar moo ko fi njëkk a xalaat ci loo xam ne kenn xalaatu ko woon vole boobu jël na di ñu gunge ba ci région yi te yàlla ak jëmu Omar Diop Omar dañ koy sant di ko ñaanal yàlla comme ni mu ko waxee Omar dafa am benn jour ñu toog muy xalaat lu daw yaram ne ma dem ñes ma ne ko naa mu ne ma dangay xool wax naa Nimzaat ni mu mel xool géejawaay mais dafa mel ni xarafalu xale yi macha allah daf fi xaw a doy waar mu ne ko xarafalu xale yi ci lan noonu mu ne ma xarafal 10 000 la parce que 10 000 la district yi di fayee mais Omar yóbbu nañu ci act boo xam ne ne macha allah def na act boo xam ne ne dañoo mujj ji jël xaraf xarafalu xale yi di ko def gratuitement di sensibiliser nit ñi di dugg ci biir kër yi ndax jëmmi Omar Diop. te volet boobu buñ ko xalaatee dafa am lu tax ñu xalaatoon ko ndax boobu dëkk bi neexul. jamono neexul macha allah gis borom kër yoo xam ne balaa ñoo xarafal seen doom yi lu yàlla xam doy na ñu ñëwoon déy ko ko Omar amoon ci xalaat bu rafet. kon Omar day yëngu ci lu baree bari bu dee milieu sport bi rek macha allah mais Omar dina defaat loo xam ne ne bu vacances jotee ñëpp toog. xalaat xale yi di traîner Omar day obligé na ma bin madame Niass ma ne ko naa mu ne ma dañuy def camp de jël xale yi moo gën ñuy traîner ñu jël xale yi indi leen fii ci mairie bi gratuitement xale yi duñu fay dara. bu ma ne ko jàngale bi mu ne ma suñu doom yi ku mag sa morom rek jàngalaate macha allah kon nag ñu ngi leen di sant di gërëm Omar Diop te xam ne loolu yëpp xalaatam la Omar kenn mënu koo fay surtout ci volet social bi volet social bi ni mu ciy yëngoo dafa daw yaram parce que wax dëgg yàlla macha allah macha allah Omar Diop maa wax ci moom lépp ndax lu ci bari maag moom ñooy yëngundu ñooy yëngu ci ci wàllu woowu kon nag Omar dañ koy sant lépp loo xam ne ne xalaat nañ ko fii rek ci lu baax rek xalaatu Omar Diop la maa ngi wax nag mention très bien à monsieur El ndax lépp El Hadj la ndax xalaat bu rafet bii bu fi nekkee ndax kenn du taxaw ne damay sargal sama bopp mais elage Hadj moo nekk ko ñàkk ki ñaan elage Hadj moo nekk nit ku baax elage Hadj moo yëngu ci loo xam ne ne macha allah sant yàlla ma di taxaw nag di sant di sant sama bopp di sant jigéen ñi nga xam ne ñu ngi fi toog di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla elage Hadj maa ngi fi taxaw taxawaayu parajuriste yi taxawaayu juriste yi ndax ñëpp gërëm nañ la ndax ñëw ñëpp waroon nañoo ñëw Omar maa ngi lay sant parce que volet sociale bi nga xam ne moo nekk ci xarafalu xale yi dem na ba ci région yi am na ci pro sëriñu daara yoo xam ne waroon nañoo mën a ñëw tey mais dafa fekk ne moment bi Saalum dañuy def ay ziar moo tax ñëwuñu sax def sa témoignage parce que dama ko yóbbu ba ci région yi te yàlla ak jëmmi Omar Diop kon nag dañuy sant di gërëm di ñaanal yàlla Omar gudd fan gu ànd ak wér ak wér li képp ku fi toog yal na ci yalla boole ci barke sayyiduna Muhammad. li dal yal na nek sargal bo xam ne dañ koy def ay ati at ci barke ya rasulullah ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp machallah allah salam alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñëpp ci sa tur ak sen sant di nuyu nek sama yo rafet yi nga xam suma su ci kër gi ñom la fi fekk ma ngi nuyu ñëpp di nuyu Omar Diop mo mi nga xam mo waral bes bi. maa ngi nuyu ay àndandoom yi fi nekk ñoom alias maa ngi leen di nuyu sëy yal na yàlla yokk doole ji Umar Diop ku nar a wax ci moom danga fiy yàgg dangay wax lu bari dangay wax lii rek bàyyi lii Umar Diop mi ngi ci daayira yi Umar Diop mi ngi ci Seydina Mohamed soppe Seydina Mohamed Umar Diop mi ngi ci xale yi Umar Diop mi ngi ci mag ñi Umar Diop mi ngi ci lépp bàyyiwul kenn ku feebar Umar Diop dina la seeti dina la faj ku ku mu gëj gis dina la seeti muy mbokk muy xam di jàmm muy xarit muy àndandoo Umar Diop ñun mënuñu ko fay ñun groupe soppe Seydina Mohamed mu taxawal mënuñu ko fay yàlla lañ koy bàyyeel ak yonent bi yàlla na ko yàlla fay lii ngeen fi def nag na yàlla na ngeen koy def at yu baree baree baree baree bari suñu ñëwee fii tey bu ëllëgee ñu dem fii jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf

Nous wuñ ma ndaxte xale mooy xamee mag ah, nous nous gis ñom amadou Diop nous gis ñom euh, Yama ñom nous gay ma j'étais en de jaxu Nous hein ñom ñu ci kër ga fekk ma fa ba ba def bac bama défé bac ba université dalu chaque week-end ngi donc Oumar euh, pour faire xalé yi teew ñi nga xamuñu génération Oumar Diop ñi équipe nationale football ñi xam Kalidou Koulibaly ak Cheikhou Kouyaté ni ñu mel ci équipe nationale non la jox gay ak Oumar Diop nekkoon ci équipe nationale. ta alal ji ñu am ñom actuellement bu ko Oumar Diop amone kon dimension sociale bi dina ëpp ndax ndaxte alal euh mbokam moko te moko xagn alal kon yeen ñi nga xamul ngeen eh, féete ko fofu ngeen xamni Oumar Diop dimension bobu la amone te ñom ñoleen leen football hein Kalidou Koulibaly ak ñom Cheikh Kouyaté ñi ngeen gis ñom seen bopp ñoleen leen football.

Mon a la ak mon colonel maa ngi leen di nuyu ñëpp ku si nekk sa tour ak sa sant di nuyu eh, imam yi fi nekk di délégué de quartier yi mon colonel monsieur le maire représentant du maire le premier adjoint monsieur Tahir Konaté di nuyu les anciens euh, du football sénégalais ñu def suñu fierté

di nuyu aussi sama soxna yi tok awo beeg ñaar yek yoy ñoo ñu ngi ne kor kor Omar yi ha ah. di nuyu famille Omar yëpp di nuyu abat sport bi tok ni di nuyu tous les responsables yi fi nek ak tous les sympathisants de Omar Diop yi fi nek et bi ma ñeu and ak sama secrétaire général monsieur euh, Aliou sen and responsable des jeunes Omar Balde euh, le président commission éducation muy euh, Babacar Diop ak ñeneen ñoo xamante ni ñëw nañ ci diggante bi te kii ma leen maa ngi nuyu mon frère Diadji euh, Ngom ci kaw di nuy tous les responsables yi fi teew Omar laa bëgg a wax Omar su may wax si moom je pense que eh, mën nañu wax Omar c'est un homme multidimensionnel parce que ñun xam nañu valeur Omar Diop souvent dama koy wax avec euh, amertume ba je dis gars yi dañuy bàyyi ba nga dee ñu soog ñëw naan la dañ lay sargal def nga lii def nga lële fekk Omar ce la a waxuma la sax ci football bi mais ci social fii ci géejawaay amul kenn ku ko fi def lu leer la c'est le cœur qui parle xam nga c'est un frère nit ñi xam nañ ko lu mu am nit ñi la koy jox day joxe ba dépense ko am këram ay jabaram ak ñuy toog mën nañ ko témoigner loolu man je témoin de Omar n'est-ce pas Moutaga fekkee nga lu bëri ah mu nekk ni koo xamante ni tey bu ñuy wax foofu circonscription fii comme ni ko soxna si waxee léegi rek Omar moo fi njëkk a dajale ji euh, xale yi di leen di leen xarafal te fayuñu dërëm bu ñu demee ba mairie bi di ko def war na si mën a associer Omar muy nga xamante def na si ba sonn na ci guddeeg bëccëg mun ñoo def fii dara dans la commune de Wakhinane Nimzatt te Omar Diop fekkewu ko wala yëgu ci wala liggéeyu ci c'est pas normal loolu leer la parce que ñu ànd nit di ko di ko signé ne ku kii la mais mooy loolu Omar en 2014 fii lañ ko sargal

mom ak jaxu gay mo namik jaxu ma koy nuyu bax babakar Samb dama ma lay nuyu bax ay gaay yu ki lañ du nuyu Salif Salif Diagne badu badu moy sama xarit nak badu Diagne moy sama xarit di nuyu les imam yi fi nek yeb ak délégué de quartier yi di nuyu tous les sympathisants di wax Omar job maak mom mi ño créer APR fi ci way kep kuy taxaw di wax waxu APR da ngay wax ci Omar job mii wala nga wax si man ñoko fi taxawal en 2008. ànd ak moom dem si président maa ko dugal si politique bi mu ngi nii parce que homme militaire la du si dugg maa ko si dugal avec Diène Farba Sarr ñu créé l'APR de Guédiawaye tey booy dox gaa APR ñeneen ngay tudd mais pas Omar Diop te pourtant c'est le c'est le pionnier moom Omar Diop lu mu def ci APR fii amul kenn ku ko def donc ça lu lu weer la donc yii bu ay nitam toogee ay xaritam toog war nañ ko wax n'est-ce pas moo tax ma ne ma je suis pas parrain sama frère la sama tonton sama lépp sama xarit la lépp la si man Omar Diop kon nag lépp lu mu jàpp incha allahu rabi dinañ ci jàpp guddi ak bëccëg di ñaan lii ñu def nii tey te ñoom sëy El Hadj maa lay remercier bu baax ak sa équipe Moustapha maa ngi lay nuyu li ngeen bi liggéey liggéey bu am solo la kenn xalaatu ko yéen ngeen def ko dañuy ñaan deuxième édition mu dàq bii te gars yi dañuy ñaan ñëpp jàpp ci ñëpp téye si affaire parce que Omar jot jar na ko ndax liggéey na lu ko jar fii si Géejawaay maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant wasalaam jërëjëf. ko jar euh, témoignage yi ñi ñi wax fii yëpp dëgg la. ñun la fédération pour la paix universelle Nous euh, duñu nominer n'importe qui ambassadeur de la paix un ambassadeur de la paix doit être quelqu'un qui doit être au service de sa communauté Nous ñu leeree ne kii askan wi moo nous. tax ñu dog la sargal nomé la ambassadeur de la paix duma ci sax euh, duma parce que je suis le président départemental des ambassadeurs de la paix de Guédiawaye mais damay je suñu kilifa Robert mon bureau national pour mon wax ci Robert. ok ok euh, comme il vient de le dire bon je peux pas bien m'exprimer en wolof je vais parler en français. <clears throat> la Fédération pour la paix universelle est une organisation, c'est une ONG qui travaille dans le domaine de la paix. elle, est présente dans près de 192 nations. La FPU travaille en relation avec les Nations Unies. Et comme il vient de le dire, la FPU récompense des personnes qui ont servi leurs nations, qui ont accompli des choses au sein de leur société. C'est pourquoi on les élève au rang d'ambassadeurs de paix. C'est ainsi que M. Omar Diop, alors vu tout ce qu'il a accompli, comme vous le savez déjà ici, <coughs> il mérite amplement cette dissection. Donc euh, souvent, nous, en 2018, nous avons organisé une conférence ici sur la paix, euh, dont le président Macky Sall était présent. Euh, on vient d'organiser notre conférence au niveau du Niger, présidée par le président Issoufou il y avait beaucoup de personnalités qui étaient là et cela se passe partout dans le monde entier. je crois qu'on est en train de prévoir aussi notre conférence et eh, au début de l'année prochaine, en 2019. Donc c'est pourquoi eh, nous sommes présents ici pour accompagner M. Omar Diop et lui remettre cette distinction. nous aurons l'occasion de revenir sur les interventions de la Rpu dans le monde. parce qu'on dit Fédération pour la paix universelle. Donc que ce soit dans les zones de conflit, au niveau des familles et dans beaucoup d'autres domaines où les gens ont besoin de la paix, la EPU essaie d'intervenir. Donc euh, dans le cadre des objectifs des Nations Unies, la, nation, EPU aussi intervient pour essayer d'apporter son soutien euh, dans beaucoup de domaines. Aussi dans le domaine interreligieux. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la foi. On ne peut pas vivre sans Dieu. Quoi qu'il en soit, les organisations que nous faisons, si Dieu n'est pas au centre, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La vision de l'homme seulement ne suffit pas. Si on n'associe pas la foi, rien ne peut marcher sans Dieu. C'est pourquoi la LPE aussi organise alors des, des relations, des conférences entre les religions pour permettre aux gens de discuter entre eux, pour permettre aux gens de parler entre eux, pour permettre aux gens de se connaître. Souvent, on ne se connaît pas. C'est ce qui amène les problèmes. Mais quand nous dialoguons, nous discutons ensemble, nous nous faisons connaître, nous vivons ensemble, au fur et à mesure, on se découvre et la paix peut revenir au niveau de nos sociétés. La paix peut revenir au niveau de nos, de nos familles. C'est pourquoi la EPU se porte alors, volontiers pour euh, accomplir ses tâches avec des personnes comme lui. C'est pourquoi en ce jour, euh, quand nous cela a été à notre connaissance, nous avons décidé de l'élever au rang d'ambassadeur de paix. Je vous remercie le maire de la commune fi ñu monsieur Racine Tala, directeur de la RTS am ñu le premier adjoint est là et euh, ses conseillers di remercier également le euh, le vieux El Hadji Sidi Marli Ndiaye le plus vieux supporter de l'équipe nationale du Sénégal mention spéciale à doyen suñu papa suñu maam ñu ñaan yàlla wéral cër je nga gën a teew ci suñu biir gën duñu taxawu di remercier Ablaï Diaw Ablaï, vraiment c'est quelqu'un qui a ni dafa xam football Sénégal man dem deux fois benn yoon këram dimanche dernier c'était à RFM maintenant Omar ñoo mais yow boo ñëwee pour émission sax moom mooy def émission bi ta place parce que la nga bëgg wax boo le il a fait des témoignages élogieux sur les anciens sportifs Il ay ay match yu am y a 50 ans 40 ans bu koy fàttali comme la finale à moment-là, le match Sénégal Zaïre en 76 jour Tabaski muy fàttali yoo xam ne Omar sax ça c'est à Diaw Je remercie Momo Koumé Koumé ñëw a fi deux fois ci réunion préparatoire yi euh, plaquette yi ñu def moom moo ko moom moo ko def il tenait à faire la conférence mais malheureusement maam mariage war a jabar Alouga, Louga loolu moo tax mu dem di remercier Mamoudou Yaya Ba di suñu frère di conseiller municipal moo si dugal na ci loxoom di remercier un jeune qui est là Bekay Koundoul Bekay ñu le lay remercier gis nañ sa taxawaay defoon nga reportage malheureusement ñu ko wane euh, boobu léegi yaa ngi ci taxaw di ci dugal sa loxo sa alal ak sa logistique yal la jàpp yàlla jàppale ci sa média bi nga wax muy Gédio Info mu jëm ci kanam vraiment c'est une personne à encourager muy un jeune très ambitieux euh, plein d'enthousiasme di remercier le groupe Sopu Nabi euh, avec maman Ndeye Matifal jigéen ñi ñu leen di remercier leen jaajëfal gis nañ seen taxawaay depuis que ñu ngi wax idée bi que Omar yéen a ngi ci dugal seen loxo ba tey bis bi mel nii enfin enfin les anciens sportifs qui sont là bon ñu ngi remercier au passage suñu suñu xarit hein, commandant Talla Diop qui était là moom c'est un fan de Léopold Diop demna mais mom le sax lañ ko tudé on l'appelle Léo mais il s'appelle Mamadou Diop il est officier dans l'armée mais c'est un fan de Léopold Diop donc mom aussi demna na ñu koy remercier enfin les sportifs qui sont là sank wax na Omar Maneko ne liste bi nga waxal ñu ñi fi tew parce que tok nañu seen ginnaaw mais xëy na ñu ñep euh, y a Mohamed Diop qui est là moi j'étais au lycée déjà avec son frère Moussa Diop ta yoy yaa ngi waagu yaa Chérif Kandji Kélla yaa Babacar yàgg naa ko gis mais xam ma sax mooy Babacar li ma ñëw ko Omar Diop yëpp xam ma moom mooy doon Babacar Sam pour vous dire que cette jeune cette jeune génération a besoin de connaître ces anciens là roy ngeen nekk ay modèle ñu roy ci yéen ñu leen di jaajëfal di ñaan yàlla wéral cëriñ bu dal fan yi ba yii di am di am di am ma mayoram yi wax na ko sànq rek moo ñu desee dem lante xam lante ñaanalante loolu mo fa dese yalla ñu yalla jàppale président ñu ngi remercier aussi ñi nga dirigé comité bi vraiment li lañ ci bëggone on a su gérer. Et le temps, on a consent que euh, euh La la cérémonie a été très sage et solennelle. amul xum càmbal càmbal amul animation amul dara dañuy def yëf yu mag mun a wéy li ko mag ñoo ko laaj parce que génération la yàlla na yàlla jàppale merci beaucoup